nguur gi ak bokk moomeel yi dañoo war a gën a jox gëdd sëriñu daara yi daal di leen boole seen budget yi nga xam ne dañ ko jagleel njàng ji loolu ki ko xam ne mooy sëriñu daara yi nga xam ne ñoo bokk ci association des daara bu département bu Pikine. na ñoo xamante ne bëgguñoo gis daara bëgguñoo dégg daara waaye daara mooy mooy defar dëkk mooy defar réew. nag état bi bu jege woon sëriñu daara yi waxtaan ak ñoom kon defe naa ne li ñuy wax ci mbedd yi. lu ci bari dina wàññeeku. nag li ñuy ñaan mooy maire yi nañu fexe jige ta sëriñu daara yi. woo ne leen wax dëgg yàlla victoire yi ñu amagum ci Sénégal ci daara daanaka mën naa ne amaguñ ci amaguñ ko ci benn côté ndax. su ko defee nag loolu daf ñuy won ne dañoo war a bàyyi xel daara yi xam ne lu am solo mu ngi fay génn ñu delluwaat bàyyi leen xel lépp loo xam ne dañ koy defal école publique français yi. ñu bàyyi gës bàyyi ci xel daara yi. ñoo ñu dee si benn bés boo xamee dañ doon amal ñaan si diwaanu mbaaw si suba tamxarit yi jot nañ taataan seen jafe-jafe waaye sàkk tamit si autorité yi daal di si indi ay saafara. waaye fekkee ne fi nga jot da nga koo loué da ngay fay ndox da ngay fay courant taalibe yi ñu la jox tamit seen bàyyi amuñu benn contribution bu ñuy def mais nooy def. nag suñu suñu li ñu gën a soxla daal mooy état def ay projet waxuma ay université waxuma dara na projet tabax ay daara. maire yi bu ñu ci daara yi di fexee yore dundu daara yi di fexe di tabax daara defe naa ne bu boobaa école yi ñaata lañ ciy def ASC yi ñaata lañ ciy def. commune bu nekk nañ fa tabax ñaar ba ñetti daara koppar yaa ngi fii jox leen sëriñ daara du ci yem de sëriñ daara yi yor kër yi ñu defal ay fonctionnaire démb rek laa toog IA bu Pikine Géejawaay di ko wax ne ko seen dotation fourniture yi ngeen di joxe. bàyyi leen ci xel daara yi mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. formation yi ngeen di defal jàngalekati tubaab yi bàyyi leen ci xel sëriñ daara yi. lu waral seen bës bi ak mbirum tam xarit sëriñu daara yi li leen ci rotal. bis bi ku ne xam na ne bis la bu am solo jiitu sax islaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa la fekkoon ñu ko daan woor. mu laaj leen lu tax ñu koy woor ñu wax ko ko mu ne leen gën leen ma yeey ci Moussa. bisub ñaan di bisub nangu ñaan it. maanaam kenn wax ne journée de deuil la déedéet mi ngi ci waaye journée bànneex la nit du ragal. dëgg nag noo koy bànneexoo mooy woor noo koy bànneexoo saraxe noo koy tere sa njaboot noo koy bànneexoo zikkër jàng alxuraan noo ngi koy bànneexoo sëriñu daara yi nekk département de Pikine ñoom ñu ngi am njort ne autorités yi dinañ leen may nopp ngir indi ay saafara si seen i jafe-jafe ki na jokkoo yéen si diwaanu Mbaaw